mbokk yi ñu ngi leen di euh, nuyu di leen dalal jàmm ci euh, plateau mi journée bi fii ci euh, Walf TV tey ñu ngi am mbégte di dalal mam Matar Gueye Mame Matar mooy vice président ONG islamique Jamra jiite aussi parti bii di RDS Rassemblement démocratique sénégalais Mame Matar ñu ngi lay nuyu. waa kay di la fay nuyoo di sóoraale ci nuyoo bi wala boog ma di leen ci jiital mbokku téléspectateurs yi. Euh, en priorité di leen souhaiter suñu meilleur vœu pour l'année 2021 voilà ñu ngi lay gërëm bu baax si li nga wuy si suñu euh, invitation alors actualité bi nag fan yële euh, peut-être bi sax mu ñëwaat euh, ak couvre-feu bi gën koo gën koo fayat mais li ñu li ñu si doon waxtaanee mooy wàllum UNESCO bi nga xam ni nee nañu dañ fa bëggoon dugal éducation sexuelle ci école yi war ko war ko doore nag ci école yu ndaw yi xale yi xam ni ñu ngi soog a dugg école Jamra nekkoon à l'avant-garde de ce combat mais développement bi si mujj mooy président de la république le 31 décembre bi passé bañ ko laajee dafa ne waaw moom sax bon xamul woon sa loolu nu mu fa demee mais en tout cas loolu il est inadmissible te euh, ce que réponse du président de la république dal na seen xel. jërëjëf Pierre d'abord ñun dañuy sant yàlla bi nga xam ne suñu borom dimbali nañu ba ñu sàmmoonteeg baat bu tedd boobu di suñu maam bi ñu bokk ñun ñëpp di Kocc Barma tàmm di wax. muy magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko naka jekk ñun artu woon nañu ndax wala dafa wax ne ku artuwul di nga atte maa ngi jël à témoin la presse écrite ci benn bataaxal bu ñu leen yónnee en date du 17 février 2018 tudd turu soxna suñuy wax Audrey Azoulay moo ko signé moo doon directrice générale bu UNESCO daf koy yónnee mbooleem réew yi nga xam ne ñu ngi bénéficier ci ndéwénal bi leen di UNESCO di jox muy benn aide financière ci wàllu njàng meeg wàllu culture xët la bu def téeméeri page ak juróom benn fukk ak ñeent ne yooyu yaay leen tax a jóg mooy joyanti njàng mi ak njàngale mi xam nga loolu éducateur ak père de yi bu ko dégg sa xel day sa njort day rafet waaye boo xuusee si document bi rek lii kocc di wax rek ne ku wax feeñ moo leen mujj dal ndekete yoo dugal nañ ci ay xët yoo xam ne nee nañ dañuy jàngal tout tànk yi ñu ngi koy tàmbalee cinq ans la maternelle ba eh, ñu nekk ca daara yu kawee la di leen jàngal lay xew ci néegu sëy loolu lu ci yoonu xale bu am cinq ans six ans sept ans bu ñu yemoon ci loolu sax ñu mën a ñu mën ko sooxaale waaye dañu tàmbali ne leen ni góor amee jigéen am xale yi war nañu xam ne am na ay xeetu doomu aadama yoo xam ne gisuñu seen bopp ci góor gisuñu seen bopp ci jigéen ñoo ñu war nañ leen may ñu am ñu doxal seen àq ak seen yelleef muy borom ñaari tur loolu la Jamra waxoon. tolérance waaye nag jàngal xale yi wala. ba ba pare naan leen nag ñooñu na ngeen leen muñal ngeen xam ne ni góor amee ay sañ-sañ jigéen am ay sañ-sañ tam noonu lañu amee ay sañ-sañ kon nag ñu ngi tàmbali woon euh, ci këyit gi heureusement jàllul waaye bu jàlloon pour xamal xale yi ne Walfadjri dañu rëy làmmeñ Jamra rëy làmmeñ rek waaye ngóor jigéen aayul c'était pour yóbbu leen ci boobu acceptation alors ñu alerté waaye sa benn naataango dóor ñu benn éditorial daal ne Jamra day euh, nu mu tuddati lu ñu yëkkati rek danañ ko réyal ba maara day musi malheureusement nag. seen raxas day fëkk ndab. mu ngoog raxas ok yaa ma gën a dégg wala sax ndekete <laughs> eh, eh, malheureusement li tubaab di wax ne eh, la ca kanam rawuli bët alors loolu moo mujj am ndax ñoom ren yóbbantewuñu binduñu ñoo ñëwal seen bopp daal di dajale ay kàngam ci wàllu wér-gu-yaram wàllu syndicat wàllu ñu yore genre ci ministère yi fii ci la petite côte de Saly daal di dëggal la nekk ca document ba waaye la ca gën a metti nag pour gën a Euh, dëgëral seen théorie euh, wane ne li dara aayu ci amuñu ku ñuy joxe comme reyukaay lu dul le premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel bi nga xam ne moo taxaw ca télé ba ne man borom ñaari tour la am na sama benn far bu ma yàggoon a nekkaaleel mu di l' architecte belge euh, Gauthier Destiné diggante bi dañ ko war a daganal le 15 mai fii ci hôtel de ville du Grand Duché de Luxembourg te nag mujj nañ takk sëy ba seen bàjjen bu góor bi di Charles Michel le premier ministre euh, belge teewee ko ak deux cents invités de marque mais loolu fa la gars yi waroon fab seen bagage génn dem wóor na ma ni bu fa dàmbooj ne woon dana créer scandale ba pare dem waaye nag li waaye li am solo mm. te Jamra ngi leen ci gërëm waa G7 wane nañ fa une posture de dignité ndax bu fekkoon dañu gedd nii rek dem euh, UNESCO capable na su ëllëg sa def conférence de presse naan voilà li ñu doon coow a ngi nii du syndicat yaa ngi nii expliqué nañ leen ko comprendre nañ ko waaye heureusement ñoom fësal nañu seen désaccord waaw même Mame Matar état donné que dañoo nekk société boo xam ne lépp lu aaju ci wàllum sexe dafa nekk tabou si suñu famille yi rarement ngay gis yaay wala papa buy woo doomam di waxtaan ak moom ci wàllum sexe di ko si yar est-ce que loolu tamit euh, ñu jàngale ko ci école yi du compenser manque bi nga xam ne am na ci kër yi waaw man je dois dire que en 68 boobu mu ma euh, franco-allemande la ñu di ko wax madame Kugler amoon nañu benn volet d'éducation sexuelle waaye nag sur le plan de la physiologie et de l'anatomie di ñu xamal nu doomu aadama bindoo bu dee góor la nu mu bindoo bu dee jigéen ak di ñu xamal les cycles menstruels ak si yooyu donc ci wàllu xam-xam wàllu science naturelle la woon. waaw parce que xale yi ko jàngul ci école yi dem jàngee ko ci di yokk xam-xam ci eh, kéemaanu yàlla ci diggante ñaari way dencante waaye ñi yemuñu ci loolu dañ ci tëxëñ euh, lu tey xel. mooy borom ñaari tur dara newu ci yéen xale yi na ngeen ko nangu na ngeen leen toléré alors ñu di ko sàggan nag te ñoom nii la ñu tàmbali woon Gabon am nañ fa ndam Gabon sukk na daanu daganal nañ fa ngóor jigéen assemblée national voté na loi bi le 23 juin 2020 le Sénat gabonais validé na ko le 29 juin 2020 Centrafrique daanu na Île Maurice daanu na kii sës rek ci ñun muy Cap-Vert daanu na fenn la lobby yi échoué mooy Mali ginnaaw yàlla ak taxawaayu imam Mahmoud Dicko moom comme que intellectuel la mu jàng xët wi gis ci liñ ci dëxëñ ci biir ci wàllu LGBT ci la wooteeg mbedd mi xutba ba noppi ne na ñëpp wàcc ci mbedd mi ajjuma ba sa topp mu tollanti ko troisième ajjuma bi rek IBK daal di ne waa d'accord nañ leen toog waxtaan dinañ ko dinañ dinañ dindi le manuel parce que manuel bi non manuel bi manuelu scolaire bi nga xam ne le gouvernement euh, des pays baa moo ko financé mooy exactement bu mel nii nga xam ne moom la UNESCO bëgg dugal alors que les d'accord ni dañ ko retiré IBK ne ko bul yem ca loola la ñu la fi posé woon il y a deux ans faale wooñu muy code la famille rocc ko ñu daal di rocc ñaar yëpp mais c'était trop tard parce que le pays était devenu ingérable militaires yi génn ci caserne yi profité ko coup d'état ko kon ñi fu ñu dem déstabiliser dëkk la mën kon nag li ñuy ñaan président Macky Sall. tontom bi est-ce euh, euh, dal na seen xel. yàlla dogal na c'est derrière nous ay on n'est pas encore prêt parce que bu on n'est pas encore rek kooku ça sous-entend xëy na jamono dana ñëw on sera prêt tontu yooyu na ko bàyyi nii mu tontu 31 décembre bi mu jàkkaarloog presse yi mais ñii li ñu fi bëgg a dugal dëppoowul ak suñu ngor dëppoowul ak suñu caada dëppoowul ak suñu diine bu bu fekkee financement moo tax wala ay projet ñu fab seen këyit UNESCO ak ñoom seen dem seen yoon loolu c'est ferme waaye na ci ngoy bu mu soppeeku naataangoom ba lay jiite woon ndem euh, Zimbabwe ndem si yàlla si Robert Mugabe noonu la def ñu may ko jàmm parce que boobu David Cameroun moo ñëw sommet Commonwealth en janvier 2015 daa di leen dajale rek seen euh, colonie yi ne leen waaw yéen a ngi góorgóorlu ci démocratie liberté d'expression pluralisme médiatique ak yooyu multipartisme et tout waaye nag aide au développement bi donte le dinañ ko continuer mais dinañu beral loxo ña nga xam ne ñu ngi jox borom ñaari tur seen ak seen yelleef ci la Mugabe jóg tontu bu ñàkk teggin ba pare ne ko go to hell va en enfer bu ñu fi waxati lu mel mu mukk keroog lañ ko gi jox lu mel noonu. wax ñun nag waxuñu Macky Sall. émission Macky Sall wax. Obama wala Macron Macky Sall mënul waxee noonu euh, waaw moom mënul waxee noonu ndax deret ji daw suñu yaram ñun sénégalais mooy daw ci yaramam muy teggin diplomatie kersa waaye fermeté bi mu def ak euh, euh, face à la presse fermeté bi mu defoon ci sommet francophonie bu Antananarivo daf leen ne lu tax ngeen yaakaar ni. parce que yéen daganal ngeen góor jigéen rek dafa war a nekk loi universelle ngir yàlla ni ngeen nekkee état souverain ñun noonu lañu nekkee état souverain kon nag na ngeen ñu nangul ñun sañ-sañ ñuy nas suñuy sart nañu ko bëggee kon nag nangoy ci loolu ñu may ko jàmm may ñu jàmm. lan moo tax lobby euh, euh, homosexuel yeeg maçonnique yi yëpp Sénégal bu ñu fëggee benn porte ñu tëj ko rek ñu ñu jëm ëpp prox ndoll bu ñuy duggaatee. ah mooy euh, tontu yolom yi rek. on va voir waaye bu dee bàyyi na ko ñu may ko jàmm. te nag gëm ni UNESCO banque mondiale fonds monétaire yoruñu añ yoruñu ndékki yoruñu reeru Sénégal suñu añ ak suñu reer suñu ñu suñu borom a ko suñu borom a ko yor hmm? moo ko ci alxuraan walilaahi xasan yi nu samawaati wal ard les trésors des cieux et de la terre ci sama loxo la ne man subhanahu wa taala waaye dafa am lu mu ci teg de walakin al munafiqiina laa yafqahuun waaye loolu nee na malheureusement naafeq yi mënuñu koo xam kon nag na Macky Sall la bàyyi naafeq yi foofu mu di ñii fi bëgg indi musiba bii nga xam ne ngor bu ko dina bu ko te mu moy ci tontu yu ferme yi mu tontu 31 décembre te bañ ci changé bañ ci yox yox yi suñu borom dana ko jàppale muy jot ay financement am di suqali mbay mi ak sant bi ak euh, euh, yeneen secteurs yi. alors yenn sujets yi Jamra doon euh, farlu doon doon doon wax doon soulever régulièrement mooy wàllum film yi ñuy teg ci télé yi surtout téléfilm Sénégal yeeg ak yi ñuy gis si yeneen ay chaînes étrangères alors temps yi déggatuñu leen trop ngeen yi agité wu lan la gars yi dañoo obéir li ngeen doon wax dafa am calme wala lan lan moo xew. non d'abord damay bañ a tàyyi di bamtuwaat rek li may faral di wax sa yenn naataangoo yi nga xam ne dañu xaw a doy waar ci suñuy taxawaay ñun Jamra xel demul ñuy am taxawaay yu naan dañu nekk ay gendarme de la conscience wala ñu nekk ay takkader nekk directeur de la de la morale ah, yàpp seen mu ngoog yéen ay censeur par excellence lu xew wala li war fi am ñoom ñoo ñu ñu waaw euh, apprécier parce que yàpp sénégalais yi weesuwul ngay bëgg a dëkkal Jamra foofu ak bëgg di wutal sénégalais yi ku leen di tànn lu ñuy xool ak lu ñu warul a xool ku xam sénégalais attachement bi mu am ci démocratie ak liberté d'expression yàpp sénégalais yi weesuwul lool ñun suñu taxawaay du dara lu dul sa taxawaay yow en tant que per de famille et chef de famille euh, di sama taxawaay di taxawaayu keneen nous sommes des consommateurs te comme ni suñu mbokk waa Ascosen yi di ubbee seen bët ak di alerte chaque fois bu ceeb bu bon bi di fi dugg wala tamaate bu périmé wala boîte de conserve yu varié di yuuxu di alerter ministère du commerce dem saisir ko daal di protéger la santé publique ñun itam yàpp jàpp nañu ne du tamaate yu varié yi rek du boîte de conserver yu périmer yi rek mooy produit de consommation série yi dugg ci xelu xale yi di dugg ci seen yóor di leen gëm ne gëmloo ne am euh, jëkkër am téeméeri far aayul di fa def pornographie verbale di jël ngóor jigéen comme la série réewu leen bi fi doon daw te ñu xeex ko ba arrêté na di ko duggal ci xelu xale yi wane ne ngóor jigéen aayul ba pare na ngeen ne kenn du wax alors yooyu la Jamra jàpp ne ay produits de consommation la am nañu droit jël sañ-sañ bi ñu yoon may daal di dem jooytu ko ci ki nga xam ne yoon daf ko fi teg pour loolu mu di le régulateur de l'audiovisuel di euh, euh, euh, CNRA. mais seetaan film yooyu ay magum jëmm lañu film yi sax bañ na ba bu bu amee yenn degré yi dañ siy bind moins de 12 ans wala moins de kii. waaw moo tax Sénégalais tamit ils sont dotés d'intelligence et de discernement. waaw moo tax ñu tàmm di wax naan li presse bi di wax rek ne les adultes sont majeurs et vaccinés. alors ñun nag ñoo ñooñu itteeluñu ñi ñu itteel mooy ñi nga xam ne ils ne sont pas majeurs et vaccinés mooy tout tànk yi ndax suñu borom euh, moo wax ci téeram waajur moo wax ci téeram yëpp ne ñooñu moomu leen leen njaboot gi dama leen leen dénk te ci nekk ci yéen dama jàpp ne berger nga te berger nag sàmmkat la sàmmkat mooy bu ëllëgee sa tribunal bu mag ba ku ci nekk dana la laaj la ma la dénkoon euh, noo ko doon sàmmee alors bu ko defee bàyyi leen seen parents yi yar leen ci ci loolu waay jur yi nag hmm. wax dëgg yàlla Pierre muy yow muy man man mi sax bu ma jógee si émission bi maa ngi daw war a lijjanti dépense suba ñun yooyu la ñuy tal tout le temps ngi si tali bi waaw mënoo am boobu responsabilité ba pare nag chaque fois bu heure télé jotee nga yore sa yat taxaw mbaa sa télécommande di zappe bu leen seetaan lii ku am boobu jot ñun dañuy dem doxi suñu itte il appartient à l'État à travers ses organes de régulation di protéger njaboot gi alors yàlla dogal na CNRA mu ngi ci wasluwaax ba yëg ngeen ne Euh, jàmmaarloo ba ñu fi jàmmaarloo woon ak canal le 19 août 2000 je prends Mamadou ndax jàppale nañ ci c'était le ministre de tutelle arrêté nañu série bu bon boobu di confession hérétique ba pare fëgg ko 3 millions d'amende ainsi de <laughs> la euh, business du sexe arrêté nañ ko ba pare fëgg leen 5 millions d'amende waaye nag am na série yoo loolu da nga see kontaan yow déedéet kontaanuma ci tout ci de ndax xam nga Walf ba ñu ko Euh, kii ba ko CNRA soññee ne ko arrêté ko dëppoo la suñu cosaan Walf dafa bañ mu ne ko nag épisode bu jàll rek ah, alamaan mu jàllale benn épisode ñu fëgg ko 5 millions d'amende <laughs> voilà alors léegi boo gisee série yii di cëppi cëppi ay maîtresse d'un homme marié kii ak infidèle rëccu ñu de hmm. ñoom dañu am benn mise en demeure mise en demeure xeetu sursis la autrement dit boo récidivé sanction yooyu yoon prévoir te nga jot ci muccandi mooy dal sa ko léegi dañu récidiver ndax infidèle épisode bi bii ji bii mujj wala ba ko jiitu xeet nañu ay am jëkkër am téeméeri far ayul xeet nañu di daganal njaaloo xeet nañ loolu léegi dañuy daggi saaga ndey yow est-ce que mën nga accepter nga toog ak sa saal ak say doom ak say jarbaat benn actrice dékki daggal saaga ndey moroom actrice am ñoom euh, risque boobu ci la ñu jaar. noonu lay amee si kër yi de. waaw <laughs> li am si société bi rek la ñuy jouer théâtre non waa mais ci kër yi yaay ñu ngi saaga seen doom yi chaque jour si kër yi. waaye ak sa diine dafa wax ni lu bon bu dee mën nga koo bañ a def moo gën boo bu bu mënul ne nag nga bañ ko siiwal kon amuñu droit di fekk nit ñi dans leur intimité familiale di fa tasaare ay yu bon entre parenthèses boo gisee les cultures euh, indiennes et japonaises à travers leur production cinématographique et télévisuelle ñu naw leen à travers le monde ça ne veut pas dire que c'est des sociétés parfaites défauts yi ñu am ñun sénégalais am nañ ko sinon même pire waaye nag seeni producteurs qui sont imbus de patriotisme culturel ñoom du ñu wane lu dul les aspects les plus positifs de leur culture kon nag ñun Sénégal war nañu fexe di exporter la gën a rafet ci suñu caada ndax Sénégal du njaaloo rek a fi am ak fen ak ñàkk jom ak euh, euh, def lu ñaaw am na yeneen yu rafet jom a ngi fi saa ngi fi ak yeneen nañuy siiwal yooyu ndax mooy xar baax yi nga xam ne moo gën a dominé. te aussi défaut défaut société bi également ñu ñu. mais défaut société mën nga koo génne nga xool noo koy woddee ana les euh, les vénérables euh, précurseurs Ousmane Sembène ana Djibril Diop Mame Beyti ana jàmbaaru góor bi euh, bu daaree ko ci Cheikh Tidiane Diop Ousmane Sembène seetaan nga Gelawaar Gelawaar ay imam ku géré lu imam saaga ndey ci ci ci ci ci. ma maa ngi ciy ñëw. voilà maa ngi ciy ah, waaye boo ko boo ko compté benn la. sur cent registre aar lañ nekk ñii nag c'est chaque jour. Hmm? alors ana dégg nga euh, Cheikh Tidiane bu daare ko jàmbaar yooyu nga xam ne dañu daan euh, ŋaññ les défauts de la société sénégalaise waaye dañ koy présenter autour d'un scénario tellement intelligent que xale yi ku ko seetaan rek jële ci jom moo tax Cheikh Tidiane Diop dimbali na xale yu bari ñu génn ci yamba ndax dafa def benn série boo xam ne ci boobu wàll la waaye scénario bi mu ko euh, woddee xale yi dañ ci mu ñu jëlee jom léegi série yi nag c'est le cas de moom li mu wax am na l'infidélité conjugale waaye dañ ko articuler autour d'un scénario pervers xale yi ko seetaan jëli ci ñàkk jom c'est pour cela qu'on les a combattus ni nga koy combattre yëpp tey boo demee euh, YouTube ñoom ay millions de vues la ñuy am ñëpp leen seetaan à travers le monde loolu est-ce que du désaveu ci Jamra ay nombre de vie duñ jàmbaar yéenewu ma ko nag maa ngi ñaan yàlla feexal ko Assane Diouf li mu def ba caabi fee de ginnaaw depuis six mois maintenant que ci Walfadjri la ko jaarale wala Sen TV wala 2 la ko jaarale ak réseaux sociaux yi Facebook kon c'est une erreur de dire que maa ngi koy gis ci réseaux sociaux yi procureur yoonam newul ci réseaux sociaux yi baax na <laughs> dem leen ngeen laaj Assane Diouf parce que léegi procureur yoon daf ko yokk un arsenal répressif ci wàllu nouvelle technologie muy la loi 2008 11 du 25 décembre 2008 moom moo jur la brigade de cybercriminalité loi boobu moo ñëw renforcer l'article 318 ak 324 du code pénal sur l'attentat à la pudeur et l'outrage public aux bonnes mœurs loolu mooy arsenalu procureur pour que ku def naka su dul noonu en violation de nos bonnes mœurs bu yaboo mu ci télé yi bu yaboo mu ci YouTube Snapchat wala Facebook yoon may na procureur mu jox jëflante kook yow am na ñoo xam ne fi may wax yow caabi féete leen naw am na ñu génn bu yàggul y compris ndaw soosu alors ñooñu alors euh, alors ñooñu article de de deux cent huit euh, onze du euh, quinze janvier deux mille huit la alors donc euh, mbir mi euh, nañu bàyyi xel ne ku si nekk si ñun am na droit exercer sa liberté d'expression et d'association waaye tubaab dafa am baat bu am solo bu mu wax te ku ne war nga ko mën a nangu mooy votre liberté s'arrête là ou s'arrête commence celle des autres penc mi ñun ñëpp a ko bokk waaye loo bokk ak ñëpp nag doo jël lépp ne ku bëgg xool ku bëggul xool loolu c'est inadmissible c'est irresponsable. et puis c'est de la provocation da ngeen bëgg une société aseptisée mais loolu mënul nekk. Mamatar mais France. yow ñun mënuñoo bàkku ne nous sommes plus démocrates que la France en matière de audiovisuel et cinématographique ana le fameux cinéaste bi defoon euh, je vous salue Marie muy euh, euh, kii nu mu tuddati Jean-Luc Godard nu mu mujjee parce que ba mu ne je vous salue Marie. ñëpp gis ne daf ko consacré jëmm ju tejj jooju di euh, euh, saydatuna mariama euh, way juru saydina insa di jésus christ ñëpp daa ne ah waaw waaw waaw ndax mu am film si si Marie ñu gën koo xam ak yooyu ndekete saay-saay la dafa def benn scénario di mettre en doute sellaayu soxna soosu di mettre en doute grossesse mu daal di jur coow communauté catholique yëpp jóg état bi déglu leen waaye jëlul mesure ñoom ñu daal di dem ci benn salle de cinéma dans la ville de Tours incendié ko c'est des catholiques extrémistes état bi daal di jóg nag les maires de des communes concernées plus de cinq 500 maires génn ay arrêtés municipaux ne film bi du fi daw te loolu France la. ñu arrêté ko wàllu religion la bokkul ak li yéen ci affaire mœurs ngeen di yëngu. waaw dama la ñuy jox exemple rek euh, non mœurs la parce que dañu dama bañ euh, wax wax yu ñàkkee teggin rek. waaye fi ñuy jaar ak soxna mari ci film bi. teggin mayul ma di ko répété fii ñu daal di ko arrêté kon dans tous les pays du monde ba ci États-Unis gis nga bu yàggoo rek ci Netflix am na lu fa doon daw def scandale am na ay communauté yu jóg des des pères de famille des associations de parents d'élèves pour que état bi dakkal ko dëkk boo dem am na benn kuréel buy protéger ak di préserver seeni valeur dëkk bu amul valeur dëkk bu amul ay référence dëkk boobu dafay nekk dëkk boo xam ne mooy li daloon Sodome et te Bible bi wax ci mooy li daloon askanu Lóot qui la version coranique de Sodome et Gomorrhe ngóor jigéen gi lesbianisme yi dafa demoon ba takkarnaase suñu boroom yónni ay avertissement yu dul jeex yonte yàlla Ibrahima ñu kokkalikoo yonte yàlla Lóot ñu kokkalikoo ba mu maaree mu yónni ñaari malaayika c'est une longue histoire dama ko kon ramassé ñu bëgg a siif malaaka yi pour tëdd ak ñoom il est vrai que euh, jëmm doomu aadama la ñu am waaye comme que dañu jóge ca leer yu kawe ya dañu rafetoon suñu borom nag ba mu entre guillemets dafa ne Seydina Ibrahima mu ne ko labayk Seydina Lot mu ne ko labayk mu ne génn leen dëkk bi ñii ils sont irrécupérables fa la yoon ni soixante-dix mille anges ñu ronu dëkk bi tël ko wëlbati ko dóor ko ci suuf taal ko incendier ko ba mu nekk doom te pourtant am na ñu fa suñu borom faat duñu góor jigéen ñu lesbienne moo tax nag ñun combat bi ñu def légitime défense la ndax suñu borom moo wax ne wat wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasa yéen jaam yi moytu leen duma yoo xam ne bu ma koy dóor ci seen kaw du yem rek ci bopp ñi tooñ kon nag doo toog rek yow Pierre ak man daa ne ah ñun du ñu laal affaire lesbienne yi wala loolu génnu la ci de loolu génnu ma ci <laughs> kon daal combat suñu borom nee na na taxaw parce que bu may duma ma seet ka def ak ku deful ñëpp laay boole damay duma ñi def ba pare duma ñoo xam ne ba wax jotee waxuñu. Mhm. voilà alors ma Matar euh, léegi nag euh, ma interroger homme politique bi nga nekk euh, mu di secrétaire général bu RDS actualité bi mooy débat bi ci wàllum financement parti politique yi lan moo si sa position. bon d' ñun ñu ngi sant yàlla ci législative yi passé languñu ci benn coalition kooku na leer. malgré que président parti yóbbaale président Macky Sall yónni na la maa ngi ko ci remercier parce que loolu yëg la. yónni na le grand serigne Dakar Pape Ibrahima Diagne parce que xam na suñu lien de parenté baayam Alaaji Basiru Diagne grand serigne ak suma yaay Fat Diagne Maram Diop ñoo bokk ndey ak baay waaye ma décliné poliment léegi opposition yónnee nañ fa soxla may tudd kenn pour ne pas faire de jaloux ma décliné yàlla dimbali ñu ñu dajale suñu dërëm ak i ñaar dërëm particulièrement ba près de nos de nos candidats ñu ngi remercier surtout diaspora bi Dame Babou di sa confrère te nekkoon euh, Sud FM ba yàlla dimbali ñu daal di déposer suñu caution. loolu la ñu bañ de diaspora bu ñu financé. voilà ah non non moom ah, dafa ñëw. fii fii non fii non non dafa ñëw jël avion indi ko fii. Hmm. alors euh, yàlla dimbali ñu ba ñu dugg ci campagne bi et waaye nag c' est une longue histoire. il y a eu des ay kilifa yu ñuy yónnee xaalis pour la campagne yu détourné ko. lenn rek la kilifa yónnee ma jot ko mooy li jógee ci euh, sëñ Abdou Karim euh, Mbacké Makarimal Akhla. bon une somme très modeste mais jot naa ci waaye yeneen kilifa yëpp inter maa ngi leen ko yëgal intermédiaire ya ngeen jox xaalis ba détourné nañ ko hmm. moo tax nag moo tax nag Jamra sur quatorze régions cinq régions rek la ñu mën a def on a fait Diourbel on a fait le département de Ourossogui dans la région de Matam on a fait le département de Nioro dans la région de Kaolack on a fait le département de Tivaouane dans la région de Thiès on a fait Saint-Louis xaalis ba jeex dañuy obligé nag ñëwaat Dakar dem ci studio yi ak di def des porte ak yooyu alors donc cinq régions rek laa def euh, sur euh, sur quatorze waaye terewul am na ñoo xam ne bëgguma leen tudd waaye ñëpp xam nañ leen yore seen kat kat ak seen i milliards def région yëpp ba noppi ma raw leen ëpp leen score. Ah, alors waaw loolu la on a fait que cinq régions suñu campagne eggul. waaye li wóor mooy on a marqué l'histoire que le RDS bi Abdou Latif Gueye créé woon en 2017 pour la première fois de son histoire. dem na à des compétitions électorales sous sa propre bannière te jotul dërëmu opposition ni dërëmu pouvoir loolu dañ koy marqué en l'histoire alors donc je disais ça. kon yow financement yi moom bu ñëwoon dina baax si yow. voilà moo tax ma ne nag financement yi waaw financement yi na ko président Macky jël au sérieux tant que jëlu ko au sérieux il y aura toujours des histoires de soupçons yaa ngi recevoir de l'argent de l'étranger et cetera parce que le président Abdou Diouf xàlloon na yoon bi jox benn mission bu am solo le professeur El Hadj ba kooku déposé na ses conclusions c'était en 98 def des propositions très pertinentes mais qui n'ont pas été suivies de fait essentiellement démarche dafa xaw a rek ni euh, le fonds d'aide à la presse taxawee parce que fonds bi duñ ko jët rek séddale ko comme ça il y a des critères le journal bi kañ lañ ko créé est-ce que am nga crise fiscale euh, fiscale est-ce que liggéeykat yi ñu ngi jot seen salaire régulièrement et cetera et cetera ñaata ngay tiré d'exemplaire bu fekkee journal la bu dee dégg nga euh, télé lan mooy impact am ci audimat bi bref bu nekk ñu jagleel la la nga yellool en fonction fi sa maqaama toll de la même manière parti politique yi aussi mën nañ commencer un premier tri te defe naa la priorité de priorités mooy xool ña nga xam ne mosuñoo bokk élection <laughs> mosuñu sax dugg ci coalition waxatuma la ñu demal seen bopp ñu tege leen ne xam nga day xaw a leer ñooñu nga xam ne nag mës nañu participer à des compétitions ñu xool ñan ñoo ci mës a jàll ba am sax dontale ay conseillers municipaux la ñan ñoo ci am ay députés ñan ñoo ci ëpp représentativité législative et cetera ñenn ñoo ci ma a def présidentielle alors bu boobaa ñu échelonné ko ku nekk ñu wax la looy jox. Mhm. alors tant que defuñu ko nag il y aura toujours des soupçons que kii euh, day wuti xaalis à l'étranger. alors maa ngi gis euh, waa Pastef ñu euh, jam leen baaraamu tuuma. Pastef bi ñu ne ba di leen waaw mais kooku c'est une autre ah, ah, ah, la Pastef nga bokk mais da nañ je suis un professionnel koo caché. waaw bi ma ci maaree dama leen mujjee ne maa tey <laughs> alors parce que ñoom. nit da ngay dégg mbaa nga ñàkk bañ a dégg mm. alors ñu di ko menacer de dissolution c'est-à-dire du retrait de son récépissé mm-hmm. moi je pense qu'il serait beaucoup plus pertinent kii nga xam ne dafa am un récépissé qui lui permet d'être un parti légalement constitué di participer à la vie démocratique de ce pays ñu bàyyi kook récépissé te góor jigéen ñi nga xam ne amuñu benn njariñ te état bi jox leen récépissé récépissé yooyu la état bi war a dindi insha allah alors euh, rapidement rek euh, en tant que chef de parti mais aussi en tant que membre de la collectivité lébu lan mooy sa position ci débat bi ñuy euh, wax fan yi yëpp ci wàllum suppression koy suggéré bu mu imposer imposer xam nga daloon na fi le président Abdoulaye Wade sur le redécoupage administratif jamono boobu Aliou sol Aliou Sow moo nekkoon ministre bi nànk loolu gis nañ conséquences yi y a eu mort d'homme sangal ca Sangalkam population yi dañ jóg révolté wu parce que les populations n'avaient pas été associées à cela loolu Macky Sall na fexe ba bañ a def erreur boobu il a le droit d'avoir son idée sur le sort des mairies de ville voilà nga posé débat bi ñu bàyyi nit ñu discuter yéen wàll fa ngeen def ay ay plateau ñeneen def ay plateau ay séminaire genre euh, euh, euh, assise nationale yi fi amoon ñu waxtaan bu ñu paree nag mu am un arbitrage ba pare moom il aura le dernier mot waaye bu ko imposer rek baaxul gënul voilà jërëjëf Mame Matar Gueye vice-président ONG islamique Jamra secrétaire général bu RDS ñu ngi lay gërëm bu baax waa kay di la gërëm Pierre Edouard di delluwaat rek di leen yee salaat yéen waa Walf yëpp nos meilleurs vœux pour année bii ñuy dugg nii yàlla def ko anek jàmm te 2020 bii nga xam ne mu ngay dem di wëy yàlla na yóbbaale corona bi ndax nit ñi sonn nañu ci couvre-feu bi sonn nañu ci couvre-feu bi yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi làqal ñu Sénégal fu yàq yeggul asalaamaaleykum wa rahmatullah amen voilà yi fi la ñu yem ak yéen ci euh, invité euh, mi-journée ñu ngi leen di gërëm ci li ngi ñu doon euh, suivre di leen jox rendez-vous di ak jàmm jërë ngeen jëf Alpha.